salaam salaamaaleykum alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag maa ngi fii di doge si ci euh, Touba tabaarakallaahu ci dëkk suñu maam borom Touba bi Xaadimu Rasuul tabaarakallaahu taal bi Sidaaj Malick bi ci fajar gi ñoo ngi nii ñëw fi nga xamante ni mooy Touba tabaarakallaahu fas yéene juli si fajar mbokk yi di leen wan ni leen euh, tabaarakallaahu diine ji benn la euh, bu Sëriñ Bamba soxlaa Xaadimu Rasuul taal bi Sidaaj Malick yëpp dañuy teew. waaye tabaarakallaahu bu gàmm jotee tamit taalibe Sëriñ Bamba yëpp dañuy teew ndax Touba Tivaouane benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mbokk yi alxaji bi ak Mame Ndokh TV loolu moo doon commencement bi mu ngi noonu incha allahu rabbi ci kanam tuuti nañ leen wan li nga xamante ni mooy xew fii ci dëkk bi jërë ngeen jëf. الشاعر بشرى الإله إلا صل يا رب العباد على النبي واو عليه ذوي البشر وصدق الخطا واو salaamaaleykum alxaaji Mbaye Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag maa ngi fii di doge ci ci euh, Touba tabarakallah dëkk suñu maam borom Touba bi xaaral ma suul tabarakallah kàddu gi Sidi Hadj Malick bi ci fajar gi ñëw nii ñëw fi nga xamante ne mooy Touba tabarakallah fas yéene julli ci fajar. mbokk yi di leen wan ah, ni leen tabaarakallaahu dina ji benn la ah, bu sëriñ Bamba soxlaa xaadimu rasuul taalibi Seydi Hadji Malick yëpp dañuy teew waaye tabaarakallaahu bu gàmm jotee tamit taalibi sëriñ Bamba yëpp dañuy teew ndax Touba Tivaouane benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mbokk yi alxaji la jëm ak mam ndokk ji loolu moo doon commencement bi noonu incha allahu rabbi ci kanam tuuti nañ leen wan li nga xamante ne mooy xew bi